أعوذ بالله سميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير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 soppe yi nga xamante ne ni a ñuy suivre ci Malikia TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal waaq te di leen baal di jiital suñu nuyoo ci sunu wéeruwaay ñun ñëpp di Serigne Babacar Sy bu Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour bu Mawlana Cheikh Seydi Hadji Malick di ko ñaana yàlla yàlla yàlla dolli guddal fanam mottali mi bétam fa tabarakallahu ñu ngi nuyu di leen ziyaara tey nag ñu ñëw ki yéen ci li nga xamante ne moom mooy yëngal képp kenn koo xamante ne am nga buumu cofeel ci sunu góor gu mag di Serigne Babacar Sy loolu mooy lan mooy ziar général bi nga xamante ne ah njaboot gi namoon nañ ko njaboot gi xiifoon nañ ko njaboot gi amoon nañu yàqamtiwu daw la waykat ba wax ci ku mar ba naani fa mbay dootul géej Tiwaawan géej giñ fa géej nag tax na mar di ñu xaw a yóbbu laabisi na waaye incha allahu rabi alamin soreetul ñu koy waaj kañ le 13 le 13 mars nga xamante ne moom lu góor ga daan wax ah, sëñ Mansour si jëm naan mars ci la lépp di marché ndax borom mars mooy Serigne Babacar Sy ziar général nag dafa am loo xamante ne ah, moom la laaj waaye laataa li mu laaj dafa nekk loo xamante ne ngëneel bu ñu sëriñ Babacar Sy indil la ndax Cheikh Seydi Aboubacar bi nga xamante ne moom moo liggéey ñoritalu liggéey Cheikh Seydi Hadji Malick Sy dafa am juróom yoo xamante ne moom la fi bàyyi muy diine gi muy tariqa bi muy suñuy métier suñuy daayira ak suñu yoonu Tiwaawan diine gi foo nekk ci àdduna mën nga koo doxal say waxtu yu juróom ni nga xamante ne noonu lañ ñu ko sante génn azaka ak màkk comme niñ ñu ko jàngalee tarixa bi kazalika wasifa subaax ngoon jokk sa tarixa jokk sa wér bi ni nga xamante ne noonu la ko sante sa métier tamit foo nekk war nga fa jaar war nga ko war nga ko war nga ko mën a doxal ak li nga xamante ne nag mu yombaloon ñu ko muy suñu yoonu Tiwaawan ndax xam na ne njaboot gu tënku kër Mawlana Cheikh Hadj Malick Sy Tiwaawan waroo sa naan waaye waroo di fa gëj waaye nag fi nga xamante ne foofu lañ war a defaroo ah war nañu am yóbbal ba nga xamante ne bu ñu demee duñ fa mën a yàqoo ndax fi nga war a defaroo kat fi nga war a setee boo fa tilimee ah di nga wër fu nekk dootoo set ziar général nag mën na mën na xaw a oyof ci ku ko xamul waaye ku ko xam du ko oyofal ndax dégg naa ci sunu sangu bu tedd ba Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ak Tijani mu ne moom soxla bu mu am at mi yëpp benn bés lay ñaan soxla ñu ne ko ban bés la mu ne mooy bésu ziar général kon moom xam na poids wu ziar général mooy la xam na poids wu ziaru nit yàlla nan lay mel xam na poids wu ziar Serigne Babacar Sy mooy lan ñu nag ñu am koo xamante ne muy Cheikh Seydou Aboubacar ah mais faral di wax ni reflet wu. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Serigne Babacar Sy lu tax reflet wu yonent bi mooy Serigne Babacar Sy Cheikh Seydi Hadj Malick Sy daf ñu melal yonent bi daal di koy tënk ci téere bi ñuy wax Xilaasul Zahab fii siratul xayril arab dund yonent bi lépp ca kaw ba ci suuf Cheikh Seydi Hadj Malick Sy tënkul ñu ko ci biir Xilaasul Zahab waaye yemul foofu mu xam ni. pratique ak théorie du ñu benn jamono ngi ñëw ñi nga xamante ne dañ dégg xilaas du du bari mu ne xaaral mooy jur fi bàyyi leen ki nga xamante ne moom mooy donn borom xilaas maanaam mooy donn ndonay xilaas muy sëriñ Babacar Sy sëriñ Babacar Sy daal di ñëw refléter yonent bi foo yonent bi tegoon tànkam amul benn bu ci mës a teggi moo tax mu am sañ-sañu taxaw ne musuma mooy sama borom moom la mel yonent bi moom moo ñëw fekk àdduna bu lëndëm kiris ñuul kukk mu daal di ciy jaar bëgginu weextaal kon ki nga xamante ne moo ko reflété muy Cheikh Seydi Aboubacar si attan taxaw ne musuma mooy sama borom kon fa yonent bi tegoon tànkam teg na fa tànkam lan lañ ci war a jàngee njaboot lan lañ ci war a jàngee wala jullit yëpp lan lañ ci war a jàngee ni Serigne Babacar si boo bëggee nekk njabootam boo bëggee am ci moom cër fa mu tegoon tànkam da fay teg tànkam sa tànk ci sàmm ci maandu ci jox cër sunu borom la la ma la ma la ma waaja waxoon ne ma sëriñ Babacar Si dégg naa ñu ne daawul gestu daawul woqatu waaw ah, ndax martaba la man ne ko man duma ma ko déggee martaba donte am na ñoo xam te ne dinañ ko déggee martaba mu ne ma noo koy déggee ma ne ko ponk gëm yàlla ñett la imaan islaam ak ixsaan pour wane ne sëñ Babacar Sy dafa kepp dafa ndar kepp ngëm yàlla ihsaan dañ lay jàngal ni la nanga nga gëm yàlla ba mu mel ni yaa ngi jàkkaarloog moom boo jàkkaarlook moom yow na nga gëm ni moom mi ngi jàkkaarloog yow sëriñ Babacar Sy nanguwul a gestu ndax xam ni bëtu yàlla mi ngi tegu ci moom kon fa tabaarakallaahu bu ñu amee ku mel noonu ñu war dem di ko ziyaara dañoo war a am lu ñu roy ci moom bu ñu royee yooyu ci moom ba pare bu ñu demee ñu jox ko cër ba nga xamante ne moom la moom la wàcc wàccuwaay bi nga xamante ne moom la yore ndax sëriñ ba Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh yàlla yàlla yokk leeram dafa wax ni booy ziyaare sëñ Babacar Sy bu fa yàgg bu fa waxtaan te bu fa yàq ndax bari na loo xam te nit ñu ngi koy ut ci àdduna mu bari ay téq-téq ñàkk xormaal place nit yàlla moo ko waral te am na nag lu xew ci jamono dangay dugg ci raw du nit yàlla yi gis sama consort gi di sinap di whatsapp waaw bëgg bëgg feeñ yàqu-yàqu lay jur ndax béréb yooyu du bérébu loolu xorma gi nga xamante ne moom nga fa war a duggee moo lay jariñ xorma gi nga xamante ne moom nga fay toogee moo lay jariñ xorma gi nga xamante ni moom ngay doxe ci bërëb bu sell boobu moo lay jariñ kon fa tabaarakallaahu ñuy dénkaat sunu bopp di leen dénk ni fa ñu jëm bërëbu nitu yàlla la defaru mën na faa am lool waaye yàqu gaaw na fa lool kon ñu ngi leen di ñaanal dem ak jàmm ñu ñaan le 13 mars fa ñu jëm ah lépp loo xamante ne ah, buub nañ ko ci ay ah, lu ñu bëgg àdduna bi lëmbajoona aduna bi yakuna njabot yi ñi ngi bëgg ñu téggu ci yoon loolu yëpp nag buumu nitu yàlla artal nako rawati na ki nga xamanteni mom lañu ziaré ñuy Cheikh Seydi Aboubacar Sy aqulu hawli haza wa astaghfiru rabbakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dem siyaare bay mooy